asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi ci jumaay Tuubaa Mbàkke di waaj waxtu julli timis gi nga xam naa bu ko defee bu soobee yàllante bi léegi noddukat bi daal di fas noddu ñoo ngi ci jumaay Tuubaa baru usia Muhammad Fadl. nga xamante ni dafa nekkoon en chantier xam naa ni léegi mu daal di noppi incha allahu rabbi ah barabu sëñ Fallou ngi ñu taaxiru noddu kon bisimilah فاذكروا أن أن لا إله إلا الله فاشهدوا أن محمدا رسول الله فاشهدوا أن محمدا رسول الله

نبرة waaw kon bu ko defee mbokk jullit yi ñoo ko déggandoo nodd gi nga xamante ni daal na fii ci jumaay nga xam ne mooy noddu timis gi ñuy waajal waxtu gi léegi fas yéene ko jullee ci biir jumaa ji incha allahu rabbi doon wax ni maanaam li nga xamante ne moo xew ci xew-xew jamono gi nga xamante ne rawatina ci média yeeg yooyu ci journaliste yi nga xamante ni tëb di joxe information yoo xamante ni dara wéru ci loolee lañ bëgg lépp daal daal di leer ci kanamu doomu aadama yi ak rawatina julli yeeg mbokk taalibe yi nga xamante ne ñoo ngi fi jumaa Tuubaa di waajal waxtu julli gi. am dañoo déggoon tey ci rajo yi ñu xëy daan ne jumaa Tuubaa tëj nañ ko ni ko ràpp te loolu moom ku ne xam ne ëpp naa def ku ne xam ne jumaa jom bu ñu ko tëjee moom mooy maanaam tëj nga bu ñu ko tëjee daal daanaka àdduna gi yoon dina dina dina lëj loolu daal dina lëj ñoo ngi ci jumaa ji di waaj waxtu julli gi di leen xamal ne maanaam li ñuy wax ni daal dara wéeru ci loolu daal lañ bëgg mu leer ci kanamu jaam ñëpp gis ngeen waa ji ñu jub ñi nga xam moom moo yor mbir bi nga xam sa loxo yi la koy def nga xamante ni maanaam di nga mën a sa loxo yi daal dina daal di mën a set mën a moytu bu baax mën a fagaru ñu jubee jumaa ji nii gis nga ñi ñaa ngir julli si nga xamante ne loolee lañ ko waxee dara wér ci daal nga xam ne doy na waar loolu loolu daal yéeme na ngi ci jumaa ji gis ngeen vocês. Né?